mbokki majmuatul fatawa tijaniya maa ngi nuyuwaat ñëpp di leen ziar di leen ndokkeel di leen ñaanal yàlla di sàkku ci yéen ñaan di ñaan borom bi subhaanahu wa taala nangul ñu suñu koor ak suñuy naafila euh, ba tey ñu ànd yeen suñu juróom-ñetteelu dars ci diwaan tuxfat ataayibil anfaas fi madhil qutbi abil abbas مي تأليف مولانا شيخ إبراهيم ابن الحاج عبد الله الكولخي رضي الله عنهما شيخ إبراهيم رضي الله عنه وهني لا طيب للعيش إصطت بك الدار أو بك الدار يا زبية ساق عن مغناك الأقدار أعني الفتاة فتاة الحي إذ حفلت sirbul kiabi laha is hunna kamaru bayne laatiba dedak teey lil ay ci ñeel sama dund bi sama dund bi du neex mukk isattat e, ndem sori nga biki ndem sori naa biki ñeel laa daaru ci ak dëkkuwaay yow mi may way muy xazal bi muy def jongoma ji nga xam ne mu ngi koy kinaayalee zabia nee na dundam du neex mukk mukk mukk su fekkente ne daf ko sori ci dëkkuwaay bàyyi ne yaa zabia tan e kéwél bi saaqa màng na al aqdaaru dogal yi an magnaaki wale say dëkkuwaay ani li ma ci namm alfataata mooy xale bu jigéen ba fataatal xay mii sab quartier bi bu quartier bi yëpp dajee xale bu jigéen boobu moo ci dàq is xafalat jamono ji nga xam ne daje na sirbul ki aabi mbooleem rabu àll yi maanaam mbooloo moo xam ne rabu àll yépp ci lañ daje wala wala xale yu jigéen ñépp ci lañ daje waaye bu quartier bi yépp daje xale bu jigéen bii may way mooy ki dàq ci quartier bi bu ñëpp dajee laxaa ñeel ko is hun na ndax ñoom ñëpp ak maaru ay weer lañ waaye moom mooy ki nga xam ne bu fenkee kenn dootoo gis weer saaha algudaafu saaha qaacuna algudaafu baaqonya eh, wa sirdaanul asiyi ak mbel xooxu ngoon ya mbel xoox rab boo xam ne diggante tàkkusaan ak gee ci lay génn eh, booba dafa rëy biir ba weex e, muy rëbb ay picc yu ndaw foo ko gis day xulli bët yi dañ arab yi dañuy wax ni tegtal la ci tasaaroo kon loolu mooy mbel xoox guddi rekk lay génn bàyyi ne wasaalat mu yol admoy yi samay rongoñ is jamono ji nga xam ne badaa feeñ na min kun na ci yenn adbaaru ak dëddu maanaam saa yoo ma dëddoo rekk samay rongoñ tuuru taaba dina neex alfuaadu sama xol bi sama xol day neex mata aqbalti saa yoo ma dëgmale waaye saa a mata adbarti sama xol day naqari saa yoo ma wanee ginnaaw bàyyi ne tambit moom nag wa dahru jamono moom iqbaalun dëgmal la wa idbaaru ak dëddu léeg-léeg mu neex léeg-léeg mu naqari mu di la junj ñaari melo yooyu nga xam ne mooy sifatul jamal ak jala bàyyi ne ayaama tubasir daw al wajhi tasmau nutqal fami minniya asmaun wa absaaru ayaama tubassiru maa ngi fàttaliku bis yooyu nga xam ne maa ngi doon gis wala yaa ngi doon gis daw al wajhi leer ak kanam gi waaye tasmaaw yaa ngi dégg nutqal fami addu kàddu gémmiñ gi maanaam làmmiñam minniya ci man asmaawun ay dégguwaay wa awsaarun ak ay gisuwaay maa ngi fàttaliku bis yooyu nga xam ne su ma xoolee gis ko su waxee ma dégg su ma dégloo dégg ko fa yaa la ayshin mada ma kaana atyabuhu nafsi lfidaau li anhaarin biha baane fa yaa la ayshin eh, aka neex dundu goo xam ne mada wéy na maa kaana atyabuhu dund googu amul lu ko gën a neex waaye nafsi sama bakkan bi alfidaaw jotee naa ko dund googu li an haarin ñeel ay dex yoo xam ne biha nekk na ci biir dex ya naarun safara muy mbëggeel bu metti mbëggeel dina metti ba nga foog ni safara si nekk laakin waaye ida kunti qad wallayti zaainatan walaysa yugni lbuka waswadda al aqtaaru bàyyi ne su fekkente ni laakin ay ida kunti su fekkente ni yow qad wallayti dëddu nga zaainatan laxas bàyyi ma ginnaaw ah walaysa yugni duma doy albukaa u jooy joy monut fac won ginnaaw gi ma won ginnaaw waaye was waddat dina ñuul al aqtaaru gox goxaan yi ci man maanaam gox goxaan yi dootut neexati ci man bàyyi ne wallaytu an ki su ma la baabee ba sonn nga bañ maa dëgmal man wallaytu an ki dama lay wan ginnaaw bi xalbi ci sama xol wa xaalib yi ak sama jëmm sarmadan faw dama lay wan ginnaaw sarman ba faw dama lay won ginnaaw génne la ci sama xol génne la ci sama jëmm ba faaw mu mel ni def ko laaj ne ko boo ma bàyyee foo jëm bàyyi ne ila alladi minhu asraarun wa anwaaru da foog ni yow rekk yaa fi ne yow jongoma bi déedéet soo ma faale hut ma bàyyi la fii génn la ci sama xol génn la ci sama jëmm waaye jublu ci ki nga xam ne minhu ci moom lay tukkee asraarun mbootam yàlla yi wa anwaarun ak leerab yàlla yi ba tey leerul bàyyi ne ilallazi ma jëm ci ki nga xam ne faaqa aqtaaban bi wat atiha moo kawe xutbu yi yëpp ci ak ndëggoom fa faada mu bëbbe minhu tukkee ci moom buxurun ay géeju xam yàlla summa anhaarun topp ay dex ilal imami mangi ngi jëm ci sama bi iliman bi mooy kan mune abil abbas mooy baayu abbas muy cheikh tidiane ahmad cheikh tidiane amul doom bu tudd abbas waaye turandoo moo am doom bu abbas ñu dikk ko kon abil ilal imami mangi ngi jëm ci sama abil abbas kidi abil abbas ahmada ahmad man an ilmi kunhi maqaamin minhu qad xaazu ahmad mi nga xam ne xam dayoob maqaamaam kam dayoob maqaamaam minhu ci moom qad xaaru ci moom ci xam dayoob maqaamaam gi lañu gëlëme mu ñoo fexe ba xam dayoob maqaamaam moom la bàyyi waxoon ne ko sama maqaama bi kenn du ko xam du nit du jinne lu dul yonantu bi sallallahu alayhi loolu la ko yonantu bi sallallahu alayhi waxoon moom i tamit Cheikh Ahmad Tijaani radiallahu anhu bañ ko laajee maanaal qutbul akbar loolu la firi woon maa ngi jëm ci ki nga xam ne huwa sultaanul wilayati mooy buur ci wilaya mooy buum di bummi ci wilaya sibtu sibtul Mustapha mooy sëtu yonent bi alayhi salaatu wassalaam man ki nga xam ne yenn haddu ci lay màbbe bii ci moom al azwaaru mboolem bàkkaar yi ci moom lañuy màbbe ndax lim ñu indil ku ci dëkk dootoo am bàkkaar te li ci gën a rëy mooy salaatul faatihi li ma ak gaaw ci màbb ay bàkkaar kon nañ ci sax ila alladi jëm ci ki nga xam ne huwa moom min xaaru min xaaru bawaa'ikihi mooy kiy loj ay gëléemam loj gëléem mooy ngir teral ay ay ay ganam waaye li ci bàyyi jublu dëgg mooy kii ki lay jàpp li ñu tuddee rëy ci yow di ko tuddee eh, eh, gis sa bopp ci yow yéem ca bopp ci yow iñaan ci yow xeetu euh, mbonteef yooyu nga xam ne dafay nekk ci jaam bi nga xam ne dara euh, benn ci yooyu bu nekkee ci jaam bi rek jaam bi mënta baax yooyu la Cheikh Tidiane di rend ci yow moo tax mu ne huwa moom min xaaru bawaikahu mooy kii loj ay gëléemam gëléem yooyu mooy rëy gi doomu aadama bi di rëy te yàlla wax na ni euh, al al kibru wal azamatu moom moo ko moom ku koy xëccoog moom mu tàbbal la safara bàyyi ne maa ngi jëm ilal ladi ci ki nga xam ne huwa moom mitaaqun mooy aji goreel mooy goreel ñëpp moo tax Cheikh Ibrahim Niass wax na ni al muridu tijaani xurrun bi nafsihi taalibe tijaan dafa libre ci boppam ku dem ba xam Tijaan kenn warulaa tënk bàyyi nee na wa kullu unaasin qaarabu qayda fahlihim wa nahnu fakkak naa qaydahu wa huwa saalim ne sëriñ si yëpp dañuy tënk seen kuy yi maanaam ku ñëw ci yow ñu tënkee la ay wax yu neex ak dugg na fi génn na fi tere la ñu ci des mu ne ba mu des ñun ñun dañoo tinki suñuy kuy yëpp ne leen fu leen neex dem leen ndax xam nañ ni ku jàpp lii dootoo ko bàyyi kon euh, bàyyi con bàyyi nee na maa ngi jëm ci ki nga xam ne metaakun mooy goreel jaam yi miskaarun te mooy fàttali jaam yi seen borom kooku mooy kan mooy Cheikh Tidiane radiallahu an ila maa ngi jëm ci ki nga xam ne huwa moom mirfaadun li shayiqihi mooy jëriñ ki ko bëgg képp ku ko bëgg moom moo lay jëriñ ndax moom mooy borom njëriñ li moom la yàlla jox muy seddale comme ni mu ko waxee ne fuyu daat yi yëpp ci moom lay teer te moom mooy séddale ila allazi maa ngi jëm ci nga xam ne huwa moom man shaanihi mun haaru mooy ki alak ki ko bañ mooy ki nga xam ne mooy alak ki ko bañ xam nga Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu waxee na ci làmmiñu xilaafatoom ne E, wa man yuhibbuni wa man yaraani fii jannatil xuldi bila buxtaani ku ma bëgg te gis ma yow yaa ngi aljana ci lu amul benn sikk mu wax feneen ne e, mu wax feneen ne fa inniya rahmaniyatullahi inda man yuhibbu wannaaru li mujaadili daf ko waxee ci làmmiñ bi Cheikh Tidiane di waxee man maay yërmandeg yàlla ci képp ku ma bëgg waaye maay safara ji jër jër ci képp ku ma bañ ku ma bëgg dugg àjjana ku ma bañ dugg safara loolu wali yu yàlla euh, bi am wilaayatu maanaam xilaafatu rek moom moo ko mën a wax kon cheikh tidiane mooy ki nga xam ne ku ko bëgg mu xéewal la mu mu mu jëriñ la ci ay mayam waaye ku ko bañ mu xalag la lida loolu moo tax yaqulu dañuy wax li haada ñeel kii anta fi naimin ne ko yow yaa ngi ci xéewal fi niamin yaa ngi ci ay xéewal kama yuqaalu li haada ni ñuy waxe kële ne ko daaru kan sa dëkkuwaay mooy safara kon ki bëgg Cheikh Tidiane moom la joxoñ ne yaa ngi ci xéewalu àjjana yi ki ko bañ moom la joxoñ ne yaa ngi ci safara bàyyi lu mu wax ci Cheikh Tidiane boo delloo ci sunna fekk ko fa yonentu alayhi salaatu wasalaam moo ne ku noonoog sama waliyu yàlla sax a ko wax ku noonoog sama waliyu déclaré naa la guerre ku yàlla déclaré ger yaa ngi safara kon tegtal baa ngoog képp koo xam ne nag danga ngaa méngoog waliyu yàlla yàlla méngoo la ku yàlla méngoo yaa ngi àjjana du lu sori lu jege la ci xadis lañ ko tënk bàyyi ne kooku mooy mu middul aqtaab yi kii tëbb kii servir xutbu yi min bad il xalaaiqi ci tàmbale mbaa mbindee fii ilal ba ci ku mujj bii ci moom ammahum ci la leen di matale izzun tedd nga wa ikbaarun ak màgg yàlla ci Cheikh Tidiane lay jaare tëb mbooleem xutbu yi lu ko dale ci aadama ba ci aaxiru waliyun lillah mujjeg wali yu yàlla ñoom ñëpp seen ak tëbb ñu ngi koy jëlee ci Cheikh Tidiane radiallahu anhu ci njëlbeen ak nekkiteef yi ba ci mujj ga kii moo leen di tëbb ku ci am tedd ngay tamit ci moom nga ko jëlee ku ci am ak màgg ci moom nga ko jëlee bàyyi ne inni man Cheikh Ibrahim sahirtu damay fog bi shawqil xubbi ndax bëggeel bi ma bëgg bi sawqil xat mi ndax mbëggeel gi ma bëgg xatmu bi ahmada muy ahmad man ki nga xam ne ahmad mi nga xam ne ma an jabat mësta ngénte mësta jur riidun ak jongoma wa ab kaarun wala ak jànq mislahu ku mel ni moom ku mel ni ahmad jongoma musu jur jànq musu jur baada nabiyiina ginnaaw yonantu yi wa saxbi ak saxaaba yi alkiraami ñi nga xam ne way tedd lañ fama jaadat mësta tabe azmaanun ay jamono wa asaarun ak ay jamono bi mislik ku mel ni yow jamono mësta joxe ku mel ni yow ginnaaw yonantu yeeg saxaaba yi jamono mësta joxe ku mel ni yow moo tax ñi nga xam ne dañoo ñàkk xam réer di wax ni Cheikh Tidiane dafay wax ni moo gën saxaaba yi taalibi Cheikh Tidiane yi dañuy wax ni Cheikh Tidiane moo gën saxaaba yi moo gën yonantu yi mooy nangam mooy nangam Cheikh Tidiane mësta wax ngëneel ci boppam wax ni moo gën saxaaba yi ñi ay taalibeem kenn mësta wax ñu Cheikh Tidiane moo gën saxaaba yi preuve baa ngi nii Cheikh Ibrahim nee na ginnaaw yonantu yi ak saxaaba yu tedd yi jamono mësta joxe ku mel ni yow Cheikh Tidiane loolu nag wax la goo xam ne te adduban la rek wax ak teggin la rek waaye Cheikh Tidiane weesu na foofu bàyyi ne inni man li faydika inni man raamin aji sàkkulaa li faydika ñeel sag ndollant sag bëbb waxta sarxin waxta sarxi sabaabi ci jamono yi sama njëlbeen nag ndaw arifan mbir moom may xam ni laa taraa duma gis doo gis yow mi may déglu charwaayal absaaru maanaam doo gis gët du gis samay maas sama maas laataral taral absaaru bët duñu gis charwaaya sama maas dam minhu maa ngi lay ñaan yow Cheikh Tidiane nga garantil ma loolu anta damaanal Moustapha yow yaay kii yonantu bi sallallahu alayhi wa garanti woon li kiraamin ñeel way tedd yi saadaatin ñi nga xam ne ñoom ñooy sang yi saadaatin asharatin ñi nga xam ne ñoom ñooy fukki sang yi yaa xayra man zaaru yow ki gën ci ki nga xam ne moom la ñuy ziyaare ji أولاك أولهم نيوني ملاي وحنك فك يويكي تنجك شيخي مويسا مسرين حرازمي علين حرازم علين حرازم كنا قمناني موي خليفة بشيخ تجان ده شيخ تجان ما خلفت سوى علين حرازم وعي وخناني أنت مني بمنزلة أبي بكر أه، وخناكو وخيو بري بري loolu nag di junju maqaam ak yetu bi waaye du jëmmi aliin kon loolu lu mat a leeral la maqaam ak xarazim yetu gi lay junju te mooy ki nga xam ne mooy moo yor xilaafatullahi al mutlaqa moom lay junju waaye duut jëmmi aliin xarazim qul wa abdurahmanin ak Abdourahman Moussa Alxaaji Jabbar Bu Azzu niki noonu Al Ammar Abdou Wahabin Sayidil Ghali Abu Nasri bàyyi na ñi ñëpp aqmaaru ay weer lañ bi jaahihim ci seen daraja rabbi yow sama boroom xawwil nii maa ngi lay ñaan nanga ma defal inkishaafa ak huññi hijaabin ak kiiraay maa ngi lay ñaan ci darajay ñii nga huññil ma sama kiiraay suhubu faydika fi qalbi lamidraaru suhubu faydika sa niir ak bëbb gi fi qalbi ci sama biir xol gi lamidraaru fa lay windeeloo say say bëbb mi ngi windeeloo ci sama xol inni man bàyyi la amri maa ngi giñ ci sama dund li shawqil xadmi ci sabab gi ma bëgg xadmu bi euh, zu walahin euh, ma ma ne ku ëppal ci mbëggeel gi falaytani yellante koon man is kaliftu ba ma toggee sama bopp al aan tey ji zawaaru euh, li nga xam ne moom mooy zawaar maanaam di aji ziyaara xatmu bii nga xam ne mooy Cheikh Tidiane radiallahu an gërëm mukk sama sang bi zu lu dul ni dama leen di ziyaara kon bàyyi ba muy way dafa mel ni demagut faas maaha shuhudun li aynin fa huwa muxtaaru ziyaara ji la ziyaara joo xam ne damay seedeloo samay shuhudun li aynin ziyaarak seedu ci ay gët كون فهو كوك مختار موي كي نوتان موي كيغا خامني تان نانكو موم شيخ تيجان رضي الله عنه تضافرت من لدن طه الهمام الى شيقي وذاك اليه الفيض مكسار تضافرت تجالونا ستيكونا ay bëbb lu tugee ci taaxa mi nga xam ne moom mooy xumaam di sang jëmpan ila cheyqi ci sama sëriñ bii di Cheikh Tidiane wazaaka loolu wala kooku eh, ilayhi ci moom lay dellu alfaydu bëbb gi miksaarun muy lu bëree bëri naam waaw kay walaadamahu samsu sumuusi fa saddada alxarru tuula layaalin jismuhu baane wala zamahu taqoog nag moom samsu sumu si jant jant gi fa saddadal xarru mu taral ak ak ak tàngooram tuula layaalin guddeeg guddag guddi gi gis mu ne kooku noonu xaarun aji tàng la gis yaramam yaram bi dafa tàng jir ndax lan bëgg gi nga xam ne bëgg na ko Cheikh Tidiane radiyallahu anhu Eh, bëgg bi nga xam ne bëgg na ko kii nga xam ne mooy Mawlana Cheikh Ahmad Tijaani radiyallahu anhu waqad ata dikk na kilalun kaaf laam-laam muy juróom-ñett fukk fi omri yi ci dundam sharafan muy dund gu tedd kilal mooy juróom-ñett fukk kaaf mooy ñaar fukk laam mooy fanweer laam wi ci des mooy fanweer muy juróom ñett fukki at yoo xam ne Maulana Cheikh Ahmad Tijaani radiyallahu anhu moom la dund muy dund gu tedd wastaaqa soxla na rabbi sama borom lahu ñeel ko war rabbu borom bi qaxaaru aji nootel noot la suñ borom namm na Cheikh Tidiane bëgg mu dellu ci moom daal koy woo ci boppam te loolu mooy càkkuteefu jaam yépp inna lillahi wa inna ilayhi rajiun wa aama yaskurin atam cant ma muy atum junni ak ñaar téeméeri ak fanweer 1230 fi shawaala ci weeru sawaal saabia asratin fukki fan ak juróom ñaar ataahu la ko dikkee moom Cheikh Tidiane sururun mbégte ma te mooy génn ak wa huwa tamit moom jamono jooju moom mizhaaru moom mi ngi mi ngi leer nañ yowm alxamiisi mi ngi tomberoon bisu alxamis bu ayida subhi <clears throat> ci côté suba munqizuna kii di ñu xettali daa woote na ngir ñu jox ko bi maa i sharabin ci ndoxam naan wa huwa ta moom miataaru mi ngi gëttu ba xeeñ parfum fa aada delluwaat nag ginnaaw bam naa naanee muttajian di tëdd yaminahu ci wàllu ndeyjooram fa bi zaaka waxtu ci waxtu woowu nag ashraqa la jolle nuurun leer goo xam ne faada tasaare na anwaarun ay leer waqad ataahu dikkee na ko jamiul ufqi mbooleem gox ya muctaqidun ñi ko gëm ñi gëm fii ci moom wa muntaqidun ak ñi ko contre ñoom ñëpp dikk nañ ataahu dikkee na ko al abraaru gor yu sell yi ñëpp dikk ci janaazam bi wa najlu barhama da yudaa muhammadu qad salla alayhi wa kullul xalqi qad xaaru ki ñuy wax muhammad ibnu ibrahim moo ko jullee jullee gu njëkk ga ndax Cheikh Tidiane waxoon na ni Cheikh Mouhamadul moo koy jullee moo tax e, bàyyi ne woon najlu barhama doomu ibrahim za kooku yudaa ñu ngi koy woowe muhammadu qad salla moo jullee alayhi suñu sëriñ boobu di Cheikh wa huwa wa kullul xalqi euh, jamono bi koy jullee mbooleem mbindee fi qad xaaru gëlëmoon nañ wa baada naxwi shuhurin sittatin kamulat ginnaaw jullee googu ba juróom benn weer qad axraja cheikhu abnaaun wa aqmaaru euh, doomu Cheikh Tidiane koy génnewaat ci ci ci dencuwaay boobu nga xam ne dencoon nañ ko ko mooy fi xabroom bi nekk tey li naqliya li naqli cheikhiya li sahra ngir toxal ko yóbbu ko ci sahra ba ca aynu maadi eh, waqad alimat ansaaru faasin ba nga xamee ni ansaaru faas yi maanaam ñiñ fekk si woon faas ñu jugee woon eh, fële aynu maadi ñooy ñooy muhaajiruuna yi ñi nga xam ne ñoom lañ fekk ci fas ñooy lansaar yi ñoo ñu xam pexey doomu Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu anhu ni kat dañoo bëgg a toxal seen baay yóbbu delloo ko dëkkam bañ ko xamee nag waxtaan dox seen diggante faradda cheikha ansaaru ansaar yi daal di delloo sëriñ bi ci tëdduwaayam boobu nga xam ne tey fa la tëdd Cheikh Tidiane radiallahu anhu ci ñaareel bi ba nga xamee ni doomam yi génne nañ ko ngir toxal ko fekk jullee gu njëkk ga Muhammadul Xaali mi ngi woon Madinatul Munawwara wala Màkka ci aj bam ñu bisee nag Cheikh Tidiane ay waxam du niil doom yi génne ko ci raw doom ba Cheikh Muhammadul Xaali julleewaat ko ñu delloowaat ko fa kon loolu mooy dëggal waxu Cheikh Ahmada Tidiane radiyallahu anhu باني أذكى صلاتين غنجاتي جلي وتسليمين أكسلمل مدى زمنين تي جيرو جامونا يالنا واتي على النبي تيونون تبي بعده آل جناغي مواتي تي آل بي وانصار أك نيكو دمبالي لي موي سنو جروم نيال القصيدة تي تحفة أطايب الأنفاس اللهم صل على سيدنا محمد وسلم جن أندون تي أكسن بوك المفكر الصوفي محمد الحسن بي والسلام عليكم ورحمة الله